soxna Aysatu Mbàkke soxna Aysatu Mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1877 ci dëkk bu ñuy wax Patar Patar maamam ja Mamor Anta Sali Mbàkke moo ko sanc ci ginnaaw bu ñu jógee ci xeex boobu amoon ci som te Màbba Jaxu Ba woote woon fa ab xare te mag ñépp demoon wuy ji Màbba Jaxu Ba ca xeex ba ginnaaw bu ñu jógee ci xeex ba nag la Lat Joor mi Mamor Anta Sali Mbàkke àndaloon demoon ca xeex ba jógewaat foofu ci som ñëwaat nag ci suuf si di Kajoor Lat Joor dem Yàlla Anta Sali Mbàkke dem sanc dëkk bu ñuy wax paataar paataar googu nag fa la sëtam bii feeñe jamono di soxna Aysatu Mbàkke doomu ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim la ak ku ñuy wax soxna Faatima Sàmba Jóob bu kokki soxna Faatima Sàmba Jóob bu kokki sëtub Sëriñ kokki Njaga Isa Jóob la soxna Faatima Sàmba Jóob moomu nag moo meññ kii di soxna Aysatu Mbàkke soxna Aysatu Mbàkke nag am na kenn ku mu bokkal kii di soxna Faatima Sàmba Jóob bu kokki Ahmadu Abdullahi Mbàkke ibnu soxna Faatima Sàmba Jóob yóbbu kokki ak ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim kon soxna Aysatu Mbàkke kenn kooku rek la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram xaadim rasuul moo ko dalal lii di alxuraanul karim ci mbàkke kajoor ginnaaw bi bitim la ko bàyyi ci daaray mbàkke kajoor jooju ba ni soxna Aysatu Mbàkke mbàkke kajoor mokkale alxuraanul karim nekkoon na itim ku mokkal alxuraanul karim moom jëmm jooju di soxna Aysatu Mbàkke nekkoon na itim ku seexul xaddiim bàyyi woon taxaw itam fi la fekk jëmm jooju di soxna Aysatu Mbàkke mook magam ja soxna Fat ja Mbàkke ginnaaw bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bàyyi ko na Mbàkke Kajoor googu ñëw Mbàkke Bawal sanc si dëkk bii di Daaru Salaam ak Tuubaa lépp itam ci teewaayu soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor la ba ni fi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bàyyi ko dem ci géej gi ci atum 1895 bi Seexul Xaddim di dem ci géej gi doom yi mu fi bàyyi woon soxna Aysatu Mbàkke mii ci la bokk ñu ràññee ci soxna Fat ja Mbàkke mi nekkoon taawu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim soxna ma kunta mi nga xam ne ni mu mu dul faadal mbàkke ñoo bokk benn waajur wu jigéen soxna faati mbàkke moom soxna penda buya ba soxna ummi mbàkke miñ joxoon sëriñ ma yaasin ummi jëng ak moom soxna aysatu mbàkke mu nekk juróomi doom yu jigéen yu fi seexul xaddim bàyyi bi muy dem ci géej gi ak ñett ñu góor ñett ñu góor ñi moo nekkoon cheikh mamadul mustapha mbàkke cheikh mouhamadul lamin baara mbàkke ak cheikh mouhamadul faadal mbàkke bi seexul xaddim jógee ci géej gi di ñibbisi nag la fi fekk cheikh mouhamadul bachir mbàkke waaye bi muy dem ci géej gi bàyyiwu ko fi waaye bi muy ñibbisi fi la ko fekk njaboot gii la fi seexul xaddim bàyyi bi muy dem ci géej gi bi sëriñ tuuba seexul xaddim jógee ci géej gi ci le 11 novembre 1902 ci njaboot gim sàkku woon ci maam ceerno ibrahima faati ngir mu indi leen ci dëkk boobu di ndar géej ngir sëriñ tuuba seexul xaddim gis leen soxna aysatu mbàkke mi ci la bokk bi matee dem kër laataas ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim di dem ci géej gi joxe na soxna aysatu mbàkke ngir mu dem kër sëriñ tuuba seexul xaddim mi ngi ko joxoon taalibeem bu ñuy wax sëriñ moodu penda jóob bu kokki bokkoon itam ci mag ñi liggéeyal ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ba seexul xaddim gërëm ko sëriñ moodu penda jóob moomu nag lañ joxoon kii di soxna aysatu mbàkke ngir mu liggéey fa ci wàllu kër soxna aysatu mbàkke moo kii di sëriñ madun penda jóob kokki am nañ nag ñaari bant yu jigéen ci ba fa soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor nekke ngir di fa liggéey ci wàllu kër ci ndigalul waajuram ku seexul xaddim ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna faatimata jóob bintu soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor ak sëriñ madun penda jóob soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor amaat na fa baneen bant bu jigéen ku ñuy wax soxna xari madun penda jóob bintu soxna aysatu mbakke mbàkke kajoor ak sëriñ madun penda jóob kon ñaari bant yii la soxna aysatu mbakke mbàkke kajoor am ak sëriñ madun penda jóob mii ko sëriñ tuubaa seexul xaddiim joxoon ñaari jëm yooyu ñu leen tuddal itam ñooy sët yi sëriñ tuubaa seexul xaddiim njëkk am ci kaw suuf soxna faati madun penda jóob mi soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor njëkk njëkk a am bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim jógee ci géej gi ci atum 1902 te sàkku woon ci maam Ceerno Ibrahima Faati mu indil ko lenn ci njaboot gi ci dëkk boobu di Ndar géej sëtam boobu di soxna Faati Mata Madun Penda Jóob àndoon na ca mbooloo ma ndax booba soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor mi ngi koy yor ñaari doom doomi jigéen yooyu soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor am ñoom ñaari tim kenn ku ne ñaari doom yi jigéen nga am soxna Faati Madun Penda Jóob mi nekkoon taawu soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor bi cheikh awa balla mbàkke ibnu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru lañ ko jébbaloon soxna faati madun pend jóob mi am naag ñaari bant kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke ñu ràññee ku ñuy wax soxna mbeen mbàkke bintu sëriñ cheikh awa balla mbàkke bintu soxna faati madun pend jóob ak kaneen ku ñuy wax soxna soxdaa mbàkke bintu soxna faati madun pend jóob ak sëriñ cheikh awa balla mbàkke kon ñaari bant yi la soxna faati madun pend jóob mi nekkoon taawu soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor ama kii di sëriñ sëriñ cheikh awa balla mbàkke ñaareelu doomu soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor bi di bi matee dem kër sëriñ moodu farmata mbàkke lañ ko jox sëriñ moodu farmata mbàkke nag doomu sëriñ aafiya mbàkke la mi rakku ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadiim moom it am naa kii di soxna xari madun penda jóob mi doomu soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor ñaari bant ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna mbeen mbàkke bintu soxna xari madun penda jóob bintu sëriñ moodu farmata mbàkke ak kaneen ku ñuy wax sëriñ abdul wudd ndóot mbàkke ibnu soxna xari madun pend joob ak sëriñ moodu farmata mbàkke ibnu sëriñ aafiya mbàkke kon ñaari bant yi itim la soxna xari madun pend joob am ak kii di sëriñ moodu farmata mbàkke bu sëriñ aafiya mbàkke ñeenti sët yooyu itim la soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor am sëriñ abdul wudóot mbàkke moom itim mooy sëtaat bu sëriñ tuubaa seexul xaddim njëkk a gisaat ndax bi fi seexul xaddim di bàyyi ko ci atum 1927 sëriñ abdul wudóot mbàkke ibnu sëriñ moodu farmata mbàkke mi ngi fi te soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor la di sëtaatub sëriñ tuuba seexul xaddiim ak sëtaatam bi ñuy wax soxna mbenn mbàkke bintu sëriñ cheikh awa balla mbàkke kon ñaari sëtaatam yi bi fi seexul xaddiim di bàyyikoo ñi ngi fi ñaari sëti soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor yooyu te sëriñ awa balla mbàkke ibnu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru meññi leen ak soxna faati madun penda jóob bintu soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor bi ñu matee dem kër muy soxna soxda la lañ ko joxoon ibnu cheikh mamadul mustapha mbàkke soxna soxdaa mbàkke bi matee dem kër sëriñ mbàkke madina lañ ko jébbaloon mook sëriñ mbàkke madina am nañ ak njaboot ñu ràññee ci soxna xadi mbàkke mbàkke bintu soxna soxdaa mbàkke bintu sëriñ mbàkke madina ak ku ñuy wax soxna maryamu mbàkke bintu soxna soxdaa mbàkke bintu sëriñ mbàkke madina ak seeni rakk ñu jëlaat baneen doomu soxna faati du pend jóob ba ak sëriñ cheikh awa balla mbàkke ñu koy wax soxna mbenn mbàkke soxna mbenn mbàkke moom bi matee dem kër waa waajuram di sëriñ cheikh awa balla mbàkke moo ko jox ab taalibeem bu mu gërëm te seexal ko ñu koy wax sëriñ moodu juuf jati sëriñ moodu juuf jati mook soxna mbenn mbàkke bintu sëriñ cheikh awa balla mbàkke di sëtub soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor am nañ ak njaboot sëriñ Moodu Juuf Jati am na ñaari doom ak soxna Mbeen Mbàkke bintu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Moodu Juuf ibnu soxna Mbeen Mbàkke ibnu sëriñ Moodu Juuf Jati ak ku ñuy wax sëriñ Cheikh Juuf ibnu soxna Mbeen Mbàkke ibnu sëriñ Moodu Juuf Jati ñaari sëti soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor yooyu te soxna Faati Madun Penda Jóob bintu soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor meññi leen ak kii di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ñooñu ñoo nekk nekk njaboot ñaareelu doomu soxna satu Mbàkke Mbàkke Kajoor bu ñuy wax soxna xari madun Penda Jóob ñaari bant la am ak sëriñ Moodu Farmata Mbàkke ñaari bant yooyu biñ matee dem kër wala biñ matee taxawal lii di kër muy soxna Mbeen Mbàkke bintu sëriñ du Farmata Mbàkke bintu soxna xari madun Penda Jóob soxna Mbeen Mbàkke moomu bi matee dem kër sëriñ Buso Ilimaan lañ ko joxoon sëriñ Buso Ilimaan am na ak njaboot ak kii di soxna Mbeen Mbàkke bintu Afia Mbàkke ak soxna xari madun pend Jóob bintu soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor soxna Mbeen Mbàkke di sëtub soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor te sëriñ Moodu Farmata Mbàkke ibnu sëriñ Afia Mbàkke meññi ko sëriñ Buso Ilimaan lañ ko joxoon sëriñ Buso Ilimaan am na kii di soxna Mbeen Mbàkke ak njaboot ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Baara Buso ibnu soxna Mbeen Mbàkke ibnu sëriñ Buso Ilimaan ak ku ñuy wax soxna Xaar Buso bintu sëriñ Buso Ilimaan bintu sëriñ Moodu Farmata Mbàkke mooy ku ñuy wax sëriñ Abdul Wudoot Mbàkke sëriñ Abdul Wudoot Mbàkke moom nag moo meññ ku ñuy wax sëriñ Moodu Ami Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Moodu Abdul Wudoot Mbàkke ak ay rakkam kon sëtub soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor bii ñuy wax soxna Mbeen Mbàkke mbàkke te sëriñ moodu farmata mbàkke meññi ko ak sëtam bii ñuy wax sëriñ abdul wudoon mbàkke te sëriñ moodu farmata mbàkke meññi ko kon njaboot gi itam ñoo nekk seeni njaboot di sëti soxna si soxna ay satu mbàkke mbàkke kajoor di doomu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim li tax ñu koy dàkkantele soxna satu mbàkke mbàkke kajoor ndax ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dafa amoon ay ay Aysatu ñu ràññee ci soxna satu mbàkke boobu mu amoon muy soxna Aysatu féete fa lool moom moo taxoon ñuy wax soxna Aysatu moom mbàkke kajoor amaatoon na baneen soxna Aysatu mbàkke muy soxna Aysatu mbàkke gaawaan ñu koy wax soxna Aysatu mbàkke gaawaan ndax liñ ko joxoon sëriñ Lamine Touré tam nekkoon jarbaatu maam Cheikh Anta Mbàkke te nekkoon ci dëkk boobu di gaawaan moo taxoon ñuy wax soxna Aysatu mbàkke moom itam soxna Aysatu mbàkke gaawaan amaatoon na baneen soxna Aysatu mbàkke ñu koy wax soxna Aysatu mbàkke ngaabu lim feeñe jamono ngaabu te nekkoon itam foofu itam ci ngaabu di fa liggéeyal suñ boroom taxoon tim ñu koy wax soxna Aysatu Mbàkke moom ngaabu ngir ràññeele ñetti soxna Aysatu yi ngir moo ci wax ñu xam ne ma dëkk ca bërëb sàngam moo tax ngay wax lool moo waraloon soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor waral soxna Aysatu Mbàkke gaawaan waral soxna Aysatu Mbàkke ngaabu waaye ñépp bintu seexul xaddiim lañ soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor bokk na ci doomu Sëriñ Tuubaa seexul xaddiim yi seexul xaddiim bàyyi woon xel ndax bi Sëriñ Tuubaa seexul xaddiim jógee ci géej gi ci atu 1902 bokk demoon ci maam Cerno mu indi leen ci ndar googu mu gis leen soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor ci la bokkoon ba tey it soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor am na sans su gis maamam ja Maam Mor Anta Sali Mbàkke kon bokk na ci doomu Seexul Xaddiim yi nga xam ne itam gis nañ seen maam ja Maam Mor Sali Mbàkke ba tey ci di soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor moo njëkk a indil waajuram wa Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim li ñu tuddee sët ndax ñaari sët yi Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim njëkk a gis ci kaw suuf soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor moo leen meññi muy soxna faati madun penda jóob ak soxna xari madun penda jóob ñaari sët yi la seexul xaddim njëkk a gis te bintu soxna ay satu mbàkke mbàkke kajoor lañ sëtaat yu seexul xaddim njëkk a gisitim soxna ay satu mbàkke mbàkke kajoor ak njabootamitim ñoo ko meññi muy soxna soxdaa mbàkke soxna mbenn mbàkke ak sëriñ abdul wudóot mbàkke ay sëtaati ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim lañ te soxna faati madun penda jóob ak soxna xari madun penda jóob miy doomi soxna ay satu mbàkke mbàkke kajoor ñoo leen meññi te ñoom ñooy sëtaati seexul seexul xaddim yum njëkk a teg bët ndax fi la leen bàyyi bi muy làqu ci 1927 te soxna ay sëttu mbàkke mbàkke kajoor mii doomu seexul xaddim mooy seen maam cër boobu mu am ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim taxoon na itam mag ñi joxoon ko cër ba tax na lu baree baree baree bari soxna sii di soxna ay sëttu mbàkke mbàkke kajoor amoon na ko ndax ci mbàkke kajoor googu mu nekkoon yoroon na fa daaray alxuraan ju mag a mag bari ñu mokkale alxuraan ci mbàkke kajoor te soxna ay sëttu mbàkke mbàkke kajoor ci daaraam jooju lañu jaare bàjjen wala ñenn ci doomu mag ñi ndax dafa am bis mag ñi doon ziyaare si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di ko wax ne soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor de ku jaaxal la ndax bépp liggéey bu jigéen di def da koy def foofu ci Mbàkke Kajoor ñeewantu nag gu mag ñi amoon ci soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor looloo taxoon ñu egge woon ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Seexul Xadiim nag doon na sàkku ci mag ñi bépp mag bu bàyyi kooti ci tund wow di njàmbur soo jëm see ci fi mu nekk soo tolloog Mbàkke Kajoor la nga yor mën nga koo jox soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor loolu itam taxoon na soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor nekkoon itam ku yoroon mbooloo mu baree bari ndax lenn cim ci mag ñi daanañ def bu ñu amee njaboot itam jébbal ko soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor ba tax na itam soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor yoroon na daara ju mag ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor ngir kàddug waajuram googu di Xaadim Rasuul ba bi fi soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor di bàyyi ko ci atu 1914 daara jooju lu tollu ñeen fukki doomu aadama ñang fa woon te nekk nag ay doomu cheikh di wéye nag ci ndigalul soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor ku mokkaloon alxuraanul karim la moom soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor ku daa yar ak di jàngale la ku daa togguy joxe la togguy joxe googu sax am na bis mag ñi eggee woon ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim di ko wax ne soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor sa moom da lu mu yor togg ko joxe mag ñooñu sëriñ tubaa seexul xadim tontu na leen keroog ci wax jooju ñu doon wax ci soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor bisub keroog bi mu leen di tontu cheikh mamadul mustapha mbàkke mii doomu xaadim rasul rasul ma nga fa woon cheikh masamba mbàkke mi rakku ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ma nga fa woon sëriñ omar mbàkke bu mbàkke kajoor itam ma nga fa woon ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi seexul xaddim kere mi nga doon wax mag ñi di leen wax ne aw ñam de képp ku koy togg di ko joxe doo wéet aw ñam itam képp ku koy togg di ko joxe doo ñàkk sëriñ tuuba seexul xaddim kere ca wax ja ma ngi cay dolli sax ne moom mu di xaadim rasul moom da koy def lu bare bari loolu itam taxoon na kii di cheikh masamba mbàkke mi rakku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim daa dog guy joxe ba mag ñi daa wax añkati sëriñ Masàmba Mbàkke yi kàddu yooyu mooy li ko waraloon soxna ay Aysatu Mbàkke itam ci loolu la saxoon di togg guy joxe di yar ak di jàngale nekk nag ci dëkk boobu ko waajuram dëloon di Mbàkke Kajoor ci kër gi mu doon liggéeyal boroomam ci wàllu kër di kër sëriñ dun pend Jóob bu kokki ba ni mu génnee àdduna ci atum 1914 nekk googu mu nekkoon foofu ci Mbàkke Kajoor itam te daa togg joxe googu taxoon na mag ñi wóolu woon ko ba joxoon baree bari tudde nañ ko doom rawatina ñi bokkal xaadimu rasuul ngir akóolute ak cofeel ak bëgg guñ amoon ci moom ñu ràññee ci cheikh mamadul moustapha mbàkke tudde na ko doom ndax cheikh mamadou moustapha mbàkke tudde woon na ko am soxna aysatu mbàkke ndax hmm. xam na ne magam la cheikh mohamadul faadal mbàkke tudde na ko doom ndax soxna mbenn baara mi ngi fi te soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor la ko tudde cheikh mohamadul lamin baara mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddim na soxna assu mbàkke mbàkke kajoor ak njaboot bari na soxna mbeen yu baree bari bintu cheikh mamadou lamine baara mbàkke soxna assu mbàkke mbàkke kajoor la leen tudde cheikh mohamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xadim moom itam tudde na magam ji di soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor doom ndax soxna aysatu mbàkke bintu cheikh mamadul bachir soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor la ko tudde cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xadim itam tudde na ko doom ndax soxna aysatu mbàkke bintu cheikh murtada mbàkke mi ngi fi te soxna abdul axat mbàkke tudde na ko doom ndax soxna assu mbàkke bintu cheikh abdul axat mbàkke mi ngi fi te soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor la ko tudde waaye jëmm ji di cheikh abdul axat mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xadim dafa def lu yéeme yéeme ci soxna si di soxna assu mbàkke mbàkke kajoor ndax ci mujjëm sëtam yu bare bari bi ñu feeñee jamono ku ci mata amu tur soxna assu mbàkke mbàkke kajoor la lay tudde ba tax na am na kenn ci njabootam ku ko doon laaj waa sëriñ bi lan moo tax jamono ji ku feeñ rek bu nekkee jigéen nga tudde ko ko assu wala mbeen kan mooy assu wala mbeen mu doon xamal doomam jooju doon sàkku ci moom loolu na ko da ngeen a am seen bàjjen bu ngeen xamul te bokk nag ca mag ña moo tax na ku feeñ ma tudde koko loolu itam moom moo waral boo demee ci sëti cheikh abdul ahad mbàkke yi ñu ci bari ay assu lañ wala ay mbeen soxna assu mbàkke mbàkke kajoor mooy li ko waral jërëjëf baay abdul ahad ba tey ci turandooy soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor waajuram wii di maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru aysatu mbàkke bintu maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru mi ngi fi te soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor la ko tudde seexi sëriñ tuuba seexul xadiimi ñu ci bari itam tudde nañ soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor mi doom ñu ràññee ci cheikh moussa ka ab taawam soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor la ko tudde muy soxna aysatu ka bintu cheikh moussa ka sëriñ mahmoud mbegere bokkoon ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadiimi itam tudde na ko doom ndax soxna aysatu mbegere bintu sëriñ mahmoud mbegere mi ngi fi te soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor lañ ko tuddee Sëriñ Omar Gueye bokkoon ci mag ñi toppoon ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam tudde na ko doom ndax soxna satu Gueye bintu Sëriñ Omar Gueye soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor lañ ko tuddee Sëriñ Muhammadu Lo Ndaam bokkoon ci mag ñi toppoon ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam tudde na ko doom ndax soxna Aysatu Lo bintu Lo Ndaam soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor lañ ko tuddee Sëriñ Masamba Faal bokkoon ci mag ñi toppoon ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam tudde na ko doom ndax soxna Aysatu Faal bintu sëriñ Masamba Faal moom lañ ko tudde sëriñ Mustapha Géy Yarwaay bu Yarwaay itam tudde na ko doom ndax soxna Assu Géy Yarwaay mi ngi fi bintu sëriñ Mustapha Géy Yarwaay soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor la ko sëriñ Mustapha Géy Yarwaay tudde ak ñeneen ak ñeneen ñu tudde doom ji mujj di soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor ndax doomu Seexul Xaddiim bi mu nekk doomu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ba ak kii di soxna Faati kokki di soxna Haysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor mi ngi génn àdduna ci atum 1914 ci dëkk boobu ko waajuram Seexul Xaddim dëloon di Mbàkke Kajoor ci kër googu mu nekkoon doon liggéeyal boroomam di kër Sëriñ Madun Penda Jóob bu kokki foofu la génne àdduna ci atum 1914 boobu waajuram wa Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim mi ngi ci résidence surveillée ci dëkk bii di Njaaréem Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim moo waxitim ñu jébbal ko boroomam ci armeer yi Mbàkke Kajoor yi ci armeer yi Mbàkke Kajoor yooyu lañ jébbal jébbal boroomam soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor ci ndigalul waajuram Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci atum 1914 foofu ñu ko denc ci Mbàkke Kajoor Sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke mi nekk xalifa Mbàkke Kajoor tabax na barab ba ba ku fa ñëw xam ne doomu ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo tëdd fii ngir barkeelu ci jëmm jooju tëdd foofu ji soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor moo tax xalifa Mbàkke Kajoor di Sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke defar ko moom itam yàlla nañu ko yàlla fayal ci yéene jooju mu am ci barabu soxna Aysatu Mbàkke mbàkke mbàkke kajoor boobu soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor li ko dale ci atum 1914 ba ci xilaaf ak sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke amul benn bis buñ ko doon fàttaliku ci liñ tudde ak màggal bi sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke toogee lii di xalifa général des mourides ci la sëti soxna ay satu mbàkke mbàkke kajoor yi dem seeti woon ku baax ki sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke di ko xamal ne sa mag ja soxna ay satu mbàkke mbàkke kajoor lañ bëgg a wutal bis buñ koy xamaat ko bu baax a baax a baax sëriñ tuuba seex saaliyu mbàkke keroog mi ngi wax ak sëti soxna ay sëtu mbàkke mbàkke kajoor yi di leen xamal ne soxna ay sëtu mbàkke mbàkke kajoor de jar na wutal bis ndax ñépp xamaat ko di ko ñaanal sëti soxna ay sëtu mbàkke mbàkke yi nag at mu jot danañ am bis buñ fàttaliku soxna ay sëtu mbàkke mbàkke kajoor ci ndigalul sëriñ tuuba seex saaliyu mbàkke ci tuuba 28 ci kër sëtam bii di sëriñ abdul wudoot mbàkke mbooleem sëti soxna ay sëtu mbàkke mbàkke kajoor yi wala sëtaati soxna ay sëtu mbàkke mbàkke kajoor nañ yendoo fàttaliku seen maam ji soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor gi nag amul bis fixe ci at mi heure bu ci njaboot gi waxtaanee ba juboo jàppal ko bis ci at mi ngir di ci fàttaliku doomu seexul xaddiim boobu di soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor yal na yàlla fay sëtam yooyu ci bis boobu ñu taxawu ci seen maam jooju di soxna Assu Mbàkke Mbàkke Kajoor lii di ndonal soxna Assu Mbàkke Mbàkke Kajoor ñaari bant la fi soxna Assu Mbàkke Mbàkke Kajoor bàyyi muy ku ñuy wax soxna Faati Madun Penda Jóob ak soxna Xari Madun Penda Diop ñaari bant yooyu mu fi bàyyi nag seeni sët ñoo yore lii di ndonol soxna assu mbàkke mbàkke kajoor ñu ràññee ci sëriñ baara buso moom soxna mbenn mbàkke moom sëriñ du faramata mbàkke ak sëriñ moodu ami moom sëriñ abdul wudoon mbàkke moom sëriñ moodu farmata mbàkke ak sëriñ du juuf sëriñ Cheikh Diouf moom sëriñ Modou juuf jati ñeenti sëtam yii ak seeni rakk nag ñoo yore ndonol soxna ay sëtu mbàkke mbàkke kajoor di ko sàmm di ko dundal yàlla na leen yàlla fay ak mbooleem seeni rakk ak képp kuñ séqal soxna ay sëtu mbàkke mbàkke kajoor jigéenub Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ba di soxna ay sëtu mbàkke mbàkke kajoor yàlla nañu ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem te guddal nag fanu sëtam yii yor ndonoom ak mbooleem soppeeb soxna ay sëtu mbàkke mbàkke kajoor